dagg leen suuf dagg leen suuf dagg leen suuf ñi sëñ Modou Aminta ñi ngi ñaan mu yàggaloon ñu ak mu ñëw ci kilifaam gi ñëw ci kilifaam yi Serigne Cheikh Fall moom Cheikh Modou Moustapha ñu koy wax Serigne Cheikh Ndiaye Mbeng ñu ñaan su borom mu yàggal fanam bi ko ak rakam yu bax yu mu andal di wajuram di suñuy kilifa way ñu ci jël ci siyaare bi nag sëriñ sa Mbàkke mi tok mum sëriñ Touba Cheikh Mouhamadul muntaha ñi nga ñaan seen borom it mu yàggal seenu dund ñoom it nee na moom la so xamni suñu borom mo nako baxé dafa mel ni lépp kër sëriñ Basirou Cheikh Basirou Mbacke moomee moom sëriñ Touba nga xam ne lu bëree bëri xamee na ko ci Cheikh Ibrahima Fall xam nañu ko ñun ci Cheikh Ibrahima Fall ci Cheikh Mouhamadul Basirou moo nu ko baaxee ba ci jaayante gi sax. Moustapha Fall ñi ma ko woon a laaj Cheikh Mor Talla Fall ñi ma ko woon a laaj ndax jaay nañ seen njuréel ga jënd ko ak taalibe te ab taalibe du laaj dara ab sëriñam kon loolu Cheikh Mamadou Bassirou moo na ko baaxe kon nekk woo lu tax lu tax loola moo tax sëriñ ko sa mbàkk bi jug bëgg seere nii sëriñ Falilou suñuy waajur I think kon yow yang ñu ngi lay séeral kàddu yi yi ñu wax Serigne Saliou ni mooy li tax Serigne Falilou jug nee na ka njëkkoon ba tax ñu naan am murit lii Serigne Falilou di def si da koo defoon defaaleel ko Serigne Fallou nee wax gi li ci ay wax la ñu yeesal waaye Serigne Fallou dex ko jébbale woon dex ko jébbaloon Serigne Fallou Mbacké moom kii mooy wax loo yërëm li Serigne Fallou Mbacké ne ci àdduna mosu ñoo jébbalu ci moom ñoom dañ leen a boole woon jébbal ne Serigne Fallou Mbacké sëñ Modou Aminata Fall ci la Serigne Fallou Fall mi njëkk a jébbaloo ci fukki fan ak ñeent ci weeru Muharram ci Haama Dial Sassine ci la Serigne Falilou Fall njëkk a jaayante waaye Serigne Fallou Mbacke moom gis ku ko jébbaloon nee na tey jii muy séeréel waajuram yi tëdd yi ni leen li ko tax a jóg mooy lam sose woon waajuram wa muy ak jaayante ànd ak moom ba si borom soppi liggéeyam ba mu ànd ak waajuramu tëdd wii muy Serigne Cheikh. jëmb faal ñoo ngi ñaan yàlla suñu borom rek mu doon ngërëmam ya ba suñu borom soppi liggéeyam bi loolu nak la bëgg àggale ci waajur wu tedd wii di sëriñ Cheikh Fall moom Cheikh Modou Moustapha muy sëriñ Cheikh Ndiaye Mbeng mu di ko seeraloo waajuram yii teg seerase nag

yaay magum jotaay bi loolu la yoon yu baaxoo kon na nga seere loolu yi yàgg sa rakk yu baax yi nga xam ni yow rek la ko sa borom baaxee ngeen seere loolu la yi loolu la sëñ Fallou di bëgg a def defaaleel ko ñëpp nag ndax moom mooy sunu sëriñ mooy wut fu yeesu tey waaye ñun yees lu leen ba noppi kon nan na yees pep yeesaaleel murid yëpp sëriñ Koso nee na wax jooju leen bëggoon na wax nga dégg ko wax leen amin sëriñ Fallou doo nga yeeslu waaye mi ngi ci Seex Ibra Fall yoonu mënu ñu yeesal pekk ci barkeb Seex Mouhamadou Mountakha ñuy toog lii ñëpp lu wér la sëñ Mountakha la seere jëwriñ sëñ Tuubaa ko seere de ñëpp lu wér la na la nangu te nangul murid yëpp rayo leen ah, waaw jërëjëf Fall baax na de yi bokk àndal moom la ko jox ci teewaayu Serigne Saliou Fall ak Serigne Cheikh Mbacke Fall ak njabootu Cheikh Moudou Moussa Fall ñëpp waaye ak yoonu murit Serigne Falilou Fall Cheikh njabootu Serigne Abdourahim ñëpp a teew ci jotaay bu tedd tedd bii mu seere te xam ni Serigne Touba baaba moo ko fi yebal ak waajuram Cheikh Mamadou Mountakha ndax bi muy jóg xamu woon lii waaye ñoo la yebal ñu déglu ko sëriñ bi nee na assalaamu aleykum réew mi yëpp ak yi mën naa bañ a gudd nee na naa sax a ñàkk waaye nag fekke moo mujjul de nee ndax bi mu ci jataay bu mel nii muy jataayu Cheikh Ibra Fall ba mu jeex nee na nga am taw féexi Cheikh fekk jataay bi fekk lu mel nii nee na war nga say kàddu ndax xol bu sedd ak xel mu dal nee na mu fekk fi mbokkam Serigne Cheikh Thioro Mbacké nee na ñu bokk lépp nee na ñu dellu ci teg nag ci jotaay bi Serigne Afia si muy sëñ Abi Bousso imam nee mi ko ziar ci jotaay nee jotaay bi rëy lool nee sëñ Cheikh nee ñu ngi lay siyaare bu baax sa mag ji fi bàyyi ko Serigne Touba Cheikh Mouhamadoul Mountakha nee na mi ngi la koy siyaar bu baax nee ni di ak a ak kantam ak ngërëmam ci serigne Cheikh Jumbu Fall nee liggéey biñ fi jot a lepp serigne Cheikh Jumbu rafetal nako lepp bari ba yalla dogal serigne Cheikh Jumbu delu ci seen maamam ci Cheikh Ibra Fall yàlla na dajeeg moom nam ko gënalé yalla de ak mom nam ko gënalé ci barke serigne Touba mais yow itam yàlla saa borom téeñal la yàkkali bi réy ko lool ba mu yàkkali ko ci say loxo waaye mu téeñal dooleel la ba nga attan ko faal ci barkeb Serigne Touba nga ànd koog sa rakk yëpp ànd koog sa doom yëpp ba foo bëgg yóbbu yéen bi yalla def nga yobbu ko fa ci barke cheikhul khadim neena nañ ndey jotaay bi li la ko def muy tawfiq neena bu fekkoon du xolam bu sedd man na ci bañ wax li Seex mustafa Fall lu wax ne dafa doy sekk waaye ci bir wax di nak dafa am lu ci mën jangate moy Serigne basirou loolu mu leeraloon ci Seex Ibra Faal da koo leeral ba ñëpp mën koo dégg waaye moom dafa bokk wax ni yaar moo ko gën a jaaxal ci kaw suuf muy muñu suuf ak taalibe Seex Ibra Faal gi jëflante tam yàgg lool nee na jot na xam sax sa yéene ak sa pasteef ak sa taalibe nii rek la mas a mel xataay ndax benn néeg la ci ci kër jàmbur ngeen ko bokk am waaye sëriñ Fallou xeeboo ko woon da ngeen ko daan ànd di ko bokk nee na lan ngeen di ci ban yéen ko daan bokk nee ca du ko wutiwaat feneen nee kon nag loolu kon ne na koo xam ni da koo jàpp bu baax defal kon bu fekkee sa bii nee du ko mën a ñàkk a leeral te boobaa ak léegi dox gi day gën a rafet di di bar di di baax rek kon nee na ñu ngi lay ñaanal xam na ni sa ñëw gii nga ñëw tey ci sëriñ Seex àndaale nga bokk yëpp àndaale nga taalibi yëpp yàlla la ko baaxee nag ci kattanu sëriñ Tuubaa ak Cheikh Ibra Fall kon mel na ne dong yépp ñëw nañu kon nee ñu nga sant baax di ñaan nag sëriñ bii sëriñ Cheikh Ndiaye Mbengue xam naa nungu nga ko ba noppi waaye nga dolli ko ak nungu ndax dolli moom dafa baax ndax sëriñ Tuubaa kat dafa am ko ko mas a ñaanal xam naa xamul lu mu koy ñaanal mu ne ko yal na la yàlla dolli mu ne ko amiin ak mën a ñaan ndolleen rek a baax kon ndolleen rek a baax ñu dolli yal na yàlla dolli ñëpp nee na boo amiin amiin Mbàkke ma ngi gis na ko waaw liggéey bi jiitu si na sëñ Modou Fall la ko indi ànd sëñ see jëmb ak ci ànd lépp ma ngay gis na ko waaw loolu yàgg na ko wax lu tege sa loxo rek doy na si daje fépp kii Bousso ilimaani jumaay Tuubaa Yeah. موسى حسيبي وعلى الامين وعلى الامين أمين